mbégte mu ànd ak bànneex ñeel sëriñ Abdou Jaxate mu sëriñ Cheikh mu sëriñ Amsatu Jaxate sëriñ sii Abdou Lahad Mbàkke sol dàllam ñëw seet ci njaboot gi jotaay bu am solo sëriñ Abdou di wax ne lii daal jur na ci moom mbégte gu rëy bis bi bis bu réyee fi ñun la ndax li fi làmb dafay bare bare ndax ci weeru muharam lañ nekk sëriñ am satu suñu maam ci la fekke woon sëriñ Touba. ñaanal ci Touba Belel te ab Abdou Lahad joxoon ma ndiggal li joxoon ko sama baay euh, sama baay ji ba ko defloo bis boobu bi mu dellusee ci la sëriñ Cheikh Jaxate fekki juróom woowu muy ñaari lu ñuy wax benn bal bu jël bu jëm ñaari rab moo tax tey mu tombeek it bis bi mu ko defee woon mu yowmu sula saay ñoom ci tawféex bu rëy nag ndax bu yooyu yëpp dajee ki ñu amul lu dul moom amuñu ku ko ëpp di kilifa ku rëy ci yoonu murit tarixa bi waaye di kilifa tam ci képp koo xam ne mbaaxul mbaaxul nga ak noo ca bokke ndax Sëñ Abdou Lahad doon kilif ñëpp kon su ñëwee ci bis boobu mu tombeek ñaar fukkeelu atu Sëñ Cheikh Diakhaté tombeek bisub talaata ba loolu euh, mbégte mënu koo ëpp ci man ndax wax naa ko ko léegi ci saal bi fi mu toogoon fa tabarakallahu cheikh abdoulahat toog na fi ba tey cheikh saaliw toog na fi ba tey cheikh soib abdul xaadir sëriñ Murtala waaye nag mu wëlbatiku jàllaat nag moom ba ca néeg ba nga xam ne fa la sëriñ cheikh dëkkaloon boppam doomi borom tubaay yi ma leen yimal yépp doon fa toog loolu dafay dëkkalaat loo xam ne man tuuti naa ca loola moom moo xam la tax mu def ko waaye man mi mu ko defal man tuuti naa ca loola ndax ma ngay dindal cërub sëñ Tuubaa moom si xuru sëñ am satu sëñ am ma ngay dundalaat cërub sëriñ Cheikh Jaxat suñu waaru saa jur ma doonoon dongab Cheikh Abdou Lahad ma ngay dundalaat ne ñun ñii kat moonu yilif ndax moonu doon ndax Cheikh Abdou moo yilifoon suñu wàññi kon loolu Mbàkke def na loo xam ne ñu ngi ñaan ci barkeb Serigne Touba barkeb Cheikh Abdou Lahad juróom mu dund ba doyal lii ab sag mënu koo féete kaw teraanga matu mënu koo féete kaw ci ku ko xam xam moom ni mu moom jotaay bi nekkoon jotaay yu ñaan ñeel Serigne Cheikh Diakhaté ak sëriñ Amsatou Diakhaté Serigne Abdou Lahad Diakhaté di wax ne dikk gi Serigne Sidi Abdou dikk ci kër gi mi ngi koy fàttali jamono janga xam ne tegoon ne gëtam ci sëriñ Abdou sëriñ ak ñu siyaarisi woon way juróom bu góor lim may fàttali mooy dafa am bis sëriñ Abdou fajar teel mu ñëw fekk si Cheikh ubbeegul booba maa ngi jàng fii ci Serigne As Jaxate ci jumaa ji bu ma jullee ci sàppe si ñëw mu tëralal ba ma doog a ñëw balaa sama bàyyee ubbi ma génn rek yam ci Serigne Saliou ak Cheikh Abdou Lahad ñu lal ab tappi toog ci nett naa ko Serigne Sidi léegi ma gaaw ma ma venee yundu damaa jommi damaa tiit daw xawma ni lolou meuna am ba yag ma yëraat muy ñom ñaar mu wëri fëgg sama bay ne ko ñima seen fi de da melni ni mu ne ma kanakan man ko seigne Abdou Lahad ak Cheikh Saliou mu ne ma gaawal ubbi buntu bi ma dari kay koy ubbi moom moo ci escalier yi moom sëñ Cheikh ñoom saaxoon dugg ci bi ñëw tayem bi ak yenen yenen yenen mais bobu mom luma gëna gën rappelé ndax moy Cheikh Abdou Lahad seigne sëñ Saliou moom tey mooy Cheikh Son wallahu